passation de service bi amoon démb ci diggante Aïssata Tall Sall ak Ismaïla Madior Fall Euh, donc euh, ki nekkoon affaire étrangère moom la ñu yóbbu justice mhm. ministre bi nekkoon justice ñu yóbbu ko affaire étrangère donc mhm. dañoo wéccoo poste yi euh, ñoom ñaar nag ku si nekk ñëw nga ci dossier yi nga xamante ne moom nga bàyyi sur la table mhm. donc Aïssata Tall Sall moom moom ci longue détention yi la àddu xam naa donc looloo nara nekk ci loo xamante ne si lay njëkk a sóobu ci lay njëkk a taxaw Ismaïla Madior Fall moom ci dossier politique yi la wax waaw euh, xam nga abi fi mu mhm. toll nii euh, jar na d'abord des fois ci ci ci yenn sujets yi balaa ñu ciy gën di avancer ñu ñu xool statut la euh, des personnes c'est-à-dire liggéey fi ñu jugee ak fi ñu ñëw. Mhm. échange la xam nga bu fekkoon ne par exemple ministère de la de de la justice dañu jël koo xam ne mosu fa nekk ñu teg ko fa. Mhm. wala ñu jël un homme politique teg ko fa wala ñu jël benn avocat teg ko fa wala mais presque. genre euh, kii nekkoon ci ailier gauche la kii nekk ailier droite. Mhm. après ñu ne ki nekk ci ailier gauche bi na dem. droite droite mhm. bi ñu def entre euh, les ministères euh, des affaires étrangères ak de la justice. ki ñu ko jox nag kenn waxul na amul nekkul domaine am. Mhm. kenn waxul parce que Aïssata Tall ñëpp xam nañ ne xam na dossier yi te c'est pas une première fois aussi muy muy muy muy am expérience ci genre domaine bi bi ci des nag mooy. sujet yi nga xamante ne nii jug na fa bokk na ci affaire longue détention yi nga xamante ni am na balaa ñi xam nga xam nga démb xaw ma barki démb nga may justifier fii ne am na ci yenn dossiers yoo xam ne dañuy ñëw fekk fi téeméeri dossier ak juróom-ñaar fukk yoo xamante ne mhm. mu ngi sur table balaa ñuy lijjanti sa dossier il faut ñu lijjanti yooyu ba yooyu ba pare bu fekkee ne yenn dossier politique yi nga xamante ne nii euh, dañ ko war a baral moom du taxaw taf taf ñu baral ko jël ci conclusion tegee na et pourtant yow sénégalais nga même bu fekkee ne autorité politique nga mhm. sénégalais nga ki ñu téye depuis 2012 àtteeguñu ko sénégalais la mhm. moom nag indi na ci benn justification parce que le seul problème moo nekkoon lan mooy tax bu buñ la arrêté ñu yéex laa àtte mhm. longue détention yi loolu la de mooy arrêté la te àtteeguñu la bokkut ak ñu arrêté la àtte la ba noppi bàyyi la ci kaso bi. Mhm. parce que loolu su boobaa sa mandat euh, ngay ngay ngay euh, ngay ngay euh, ngay tëdd. parce que tant que àtte wuñ la yow yaa ngi sa présomption d'innocence. d'innocence maanaam mën na mën na c'est comme si que yow dañ la accuser rek. Mhm. dara leeragul na yow li nga li la accusé dëggaloo dëgg te conséquence yi ci am dinaa ci ñëw doon na gën a yaatu mais bokk na ci benn bari na ku ñu téye deux ans trois ans quatre ans. ñu àtte la ne la defoo dara dem nañu ne defoo dara. Mhm. muy benn ñaareel bi mooy bëri na koo xamante ne nii li mu toog ci durée de détention bi. waru ko woon tëdd waru ko parce que mhm. par exemple ku def ku def. 6 euh, mois nga tëdd 3 ans alors que 1 an kese nga waroon tëdd ñu àtte la ne la 1 an nga waroon tëdd kon dañ lay libéré. te kenn du la fay indemnité fay benn indemnité. Mhm. loolu tamit beneen question la mais moom am na lu mu ci justifié xaw ma nag ndax ñëpp dinañ ko apprécier mu déet. boo seetloo Aïssata Tall Sall daf ne li waral euh, détention euh, kii euh, longue détention yi mooy ñu ci bëri ci ñoom dañul am taxaw maanaam dañ leen di tëj du ñu am branlon wala du ñu am ku leen taxaw wutal leen avocat de un wutal leen avocat parce que bari na ñuy tëj ñoo xam ne peut-être seeni parents amuñu moyen pour am fay avocat wala mhm. amuñu accès ci yenn cabinet yi pour mën a am ku leen taxaw parce que mhm. avocat yi aussi pour dire vrai dañuy fayeeku Ah, dañuy fay dañuy liggéey dañuy liggéey comme ni enseignant bi di liggéeyee keneen di liggéey keneen di liggéey ñoom tamit noonu la liggéey balaa ñuy jël dossier day nekk même dossier bu mu mënti doon nag ñoom mën nañ koo jël mhm. avocat moom mooy métier boo xamante ne nii vraiment dossier boo xam ne wóor na la ne lii sax kii dafa war a tëdd kaso teewul yow da koy défendre mhm. loolu mooy seen métier mais euh, loolu nee na euh, explication bi mu ci amal lool la mooy ñu ci bëri dañoo amul taxawu mhm. mu ne nag par solution am na ci ñoo xamante ne nii état sax war na leen mën a utal avocat. ñu àtte mhm. leen bu ñu leen àtte mooy le cas de Adji bi nga xamante ne ni avocat état moo ko. utal loolu loolu sax day am parce que obligation la ku taxaw ci baar ba. da ngay am avocat balaa ñu lay yool mais nag wax ji mooy longue détention yi tey jii nii soo amul avocat boo xam ne yaa ko recruter sa bopp dangay ngay xaar ci avocat bu état avocat bu balaa muy ñëw c'est parce que dañuy ne procès am na. waaw avocat bi balaa mu ci ñëw day fekk procès am ensuite ban moment sax la koy état di acté. parce que bu fekkee ne sans sans dépend ci sujet yi la ci euh, domaine bi ñu la jàppee parce que am na ñoo xamante ne affaire politique la c'est des manifestations politiques yoo xamante ne ni bëri na ci tey ay manifestants yoo xam ne ñu ngi ci kaso bi ñenn ñi ñu xam ñoo am sens. ñu xam ne ñii non mhm. dañ ne xam ne sax ñii ay partisans lañ. léegi nag parti boobu ci boppam utal ñooñu seen i avocat ñëw di défendre ñooñu mais ñi mm. nga xam te ni xamuñu leen seen tur siiwul seen tur siiwul mm-hmm. yaa ngi dégg ñooñu dañuy yàgg ci kaso bi parce que du ñu xam ne ñoom ci camp boobu la ñu bokk mm-hmm. et pour ñu àttale il faut que nga wut avocat boo mm-hmm. ko yeexee am donc mën nga yàgg ci biir kaso bi bi ci des aussi mooy solution bi mu ci joxee mooy dana ubbi benn enquête benn genre euh, audite boo xam ne da koy sant euh, tout simplement général euh, des affaires judiciaires lu automatique lay doon loolu la wax nee na mooy première mission Euh, saisir leen pour ñu def audit xool longue de ñi nekk ci en longue détention yëpp seen dossier. ñu xool ñi nga xamante ni war nañ war nañ ko accélérer ak ñi nga xam dañ leen wutal avocat ak ñi nga xamante ne di euh, amoon nañ sax ay avocat mais mm-hmm. kenn xamul lan moo téye seen dossier dossier ba tey donc moom loolu la avancé parce que ci biir communication aussi wax na ne les sénégalais sénégalais bu nekk. Mm-hmm. même sama bàjjan Fatima Bale am na droit avoir euh, ay information ci cadre justice au Sénégal. moom mm-hmm. loolu la wax. foofu nag ça reste une question. Mhm. parce que bëri na ci ay sujet yoo xam ne dafa laal wàllu justice ku ko fi laal ñu jël la yóbbu ca kaso ba ne amoo droit wax ci. Mhm. donc bu waxee moom ne sénégalais bu nekk am na droit. xam naka lay justice di doxee. Mhm. te yow justice boobu ni muy doxee ku. kenn du ci wax kenn du ci wax su boobaa kenn du xam loolu euh, nu mu fa demee même avocat yi nga xamante ni sax des fois dañuy prononcé wu ci yenn dossiers yi. dañuy gis ne ñoom it dañuy am ay problème ci euh, côté justice. muy benn ñaareel aussi dafa wax ne. Euh, euh, justice ci boppam dafa soxla di communiquer. Mhm. avec la population. Mhm. justice bi ci boppam dafa soxla di communiquer avec la population c'est-à-dire di justifier ci yenn dossier phares yi par exemple bu ñu waxee affaire terrorisme am na. Mhm. mais dafa war ci ministre de la justice ci boppam mu communiquer waxuma communiquer bind ay texte rek teg parce que am na sénégalais boo xam ne xamul lu xew. mais pour avoir une information de boo xam ne dina la permettre yow nga mën a xam lan moo xew dëgg dëgg dëgg dafa jot euh, ñu def ay conférence de presse ay point de presse yoo xam ne dañuy leeral exactement qu'est-ce qui se passe surtout ci yenn dossiers yi. mais mu ne pour cela pour mhm. solution bi. Mhm. Euh, moom li mu jàpp na mooy solution. donc mhm. donte man jàpp ma ne c'est la c'est la bonne solution mu mooy mu wut un porte-parole. man ko gouvernement bi sax am na porte-parole mais yenn dossiers yi ña ci wax. <laughs> am na ci dossier yoo xam ne ba léegi. donc moom mooy gën a pour wax si. peut-être nee mm-hmm. porte avec le porte-parole euh, du ministère de la justice dina mën a permettre yenn information automatique yi ñoom moom mu ci mën di prononcer wu. Ah, mais bon pour mën a euh, communiquer avec la population comme moom mu ngi ñëw di indi solution yi. nañ ci am yaakaar parce que am na benn ministre de la justice boo xamante ne mos na toog assemblée nationale ñuy wax lu jëm ci euh, cadre justice muy mbëllee ñaawal quoi non génne làmmiñam di mbëllee mais donc muy geste yoo xamante ne en fait dafa rafetul sax si ñu koy gis si si ministre autorité. xam nga ci loo xamante ne dossier yoo xamante ne dañ cee war a prononcé wu la indi indil askan wi ay leeraange. juste juste parce que dafa am dossier yoo xamante ni concerné wut l'individu bi ñu arrêté wala bi nga xamante ni moom moo nekk affaire ak yoon mais dafay concerner toute une bu fekkee ne par exemple da ngaa jàpp benn groupe tuddee leen ay terroristes. loolu nekkatul groupe ba la concerné mais ça concerne tout un peuple. parce que affaire bi nga wax noonu dafa nekk euh, lu concerné sénégalais yépp fu nekk mën na fa génnee il faut d'abord des des des communications pour sénégalais yi mën a xam lan moo xew avec des justifications aussi yu palpables mi benn. te te te te te moo yooyu ci ci ci ci la njëkk a. commencé de moom ministre de la justice que moom moo fi njëkk a sulli. affaire de ñoo ñu di def yooyu ay mbër lañu. Ah. donc bi mbër yi révolté après mu indi ay turu terroriste ak. ay forces occultes ak yu kenn xamul. voilà terme yooyu yëpp ci le même ministre uh-huh. léegi euh, bu muy muy muy loo xamante ne nii aussi jar na ko léegi ci cadre boobu ba tey abi boo jëlee par exemple un homme politique boo xam ne dafa am des centaines et des milliers de sénégalais yoo xamante ni ñu ngi ci ginnaawam. justice boobu aussi dañuy xaar muy justifié ci yenn arrestation yi parce que ñaari arrestation moo am boo xamante ne nii dañu man sam bopp man maa man maa plainte une personne loolu su boobaa man mi ko accusé man maa indi des justifications man maa indi tuuma yi nga xamante ne nii teg naa ko ci kawam ne lii moo tax ma tuumaal ko. Mm-hmm. par exemple bu ñu nee Ousmane Sonko dañ ko arrêté ci affaire euh, ci affaire manifestation yi fi amoon sama doom daf ci génn àdduna bu fekkoon na man maa plainte su boobaa damay justifier ne ci manifestation yooyu lii mooy indi justification yi. Mm-hmm. mais bu fekkee ne état ci boppam nag moom moo accusé moom ci boppam moom mooy wuri ji ay justification pour wane ne comme amul kenn koo xamante ne nii ci Sénégal waxagul fii ne sama doom dee demee Sonko moo ko rey mhm. wala boog ci wooteem la dee et cetera et moom ci boppam moom ji ay justification te loolu aussi day tardel dossier mooy waral ñu bëri nekk en détention ah te duñu leen àtte parce que état ci boppam moom mooy wuri ji wuti ji ay ay euh, ay pap ay pièces yoo xamante ni moom mooy justifier euh, arrestation bi te dinañ dem ba à la fin da ngay gis ne dañuy décharger yenn yenn euh, accusation yi. Mhm. donc parce que duñ ci am ay. amul preuve justification indi sax affaire boo xoolee affaire Adji bi am na ci yenn accusation yoo xam ne amuñu pièce bu ko justifier dañuy mujj jël loolu mais loolu noonu aussi buñ buñ ci fiyewu de. parce que yàgg nañ fee chargé nit. amuñu pièce de justification yi te teewul charge yi dafa des. waaw mais mais mais mhm. mais loolu euh, mooy entre guillemets rek. Mhm. justifier yenn détention yi nga xamante ni ba tey dañ naan la personne lu tax. lu tax àttee ñu ko comme le cas de Sonko Sonko ba léegi àttee guñu ko àttee mm. ñu ko ci dossier yi surtout bii nga xamante ni lañ ko mujjee arrêté concernant ay affaire de crime ak et tout il faut ñu dajale pièces yëpp mm-hmm. pour mën a peut-être dem ci benn procès procès yi yàgg yi ngay gis yëpp yu ci ëpp loolu la que ça soit le citoyen euh, lambda ou en tout cas un homme politique euh, boo xamante ni dañ koy tudd ci réew mi loolu entre guillemets mu des beneen point boo xamante ni wax na ko muy euh, vacance aussi euh, des des vacances judiciaires yi ñuy mhm. tudd ci côté ci côté justice magistrats yi dañuy jékki-jékki nekk en vacances bu ko defee yéen dossiers yëpp day taxaw ñi nga xamante ne dañ leen doon soog a ñooñu duñu waxagum seen wax dañuy nekk ci kaso bi rek en attendant mhm. euh, magistrats yi ñëwaat pour ñu mën a surtout juge bi nga xam ne moo yor sa dossier moo war la moo la war a arrêté da nga toog lu tolloo cinq jours foofu lim ci wax mooy dafa bëri mm. te pour cela dina ci discuter avec magistrats yi pour ñu xool nu ñu ko diminuer wàññi ko parce que euh, lu toll ne justice bu jël vacances lu tollook ñeent fukki fan ak juróom ëpp na ci ab réew dafa mel ne dañ ne euh, justice bi dafa paralysé wu ci période boobu noonu mm-hmm. un mois euh, combien de jours un mois. ñeent fukki fan nga wax. ak juróom 45 jours. un mois 15 jours. Mhm. c' trop pour euh, justice boo xamante ne nii euh, dossiers yi par jour mën nañu jot des 500 mhm. des 600 euh, dossiers par jour te ñu war ko àtte loolu aussi bokk na ci conséquences yi nga xamante ni mooy waral longue détention yi. parce que am na koo xam ne chaque premier août dañuy dem vacances. voilà am na koo xam ne bi ñu koy arrêté automatiquement normalement bu ñu ko àtte woon dañu koy bàyyi mu dem wala boog la muy tëdd un mois lay doon mhm. bu fekkee su boobaa. Euh, da ngay gis ne moom day xaar ba justice ñëw mhm. euh, nekkaat euh, ci liggéeyam pour ñu koy soog a àtte loolu yëpp peut-être li nga wax tout à l'heure c'est très intéressant da nga ne mhm. on benn ministre bu bees mhm. mu commencé di communiquer avec la population am yenn piste yoo xam ne musuñ koo laal mu laal ko ci dalal xelu askan bi c'est si mais c'est pour c'est pour quatre mois même bu dee pour quat mois ministre ngi ñëw tey jii nii boo liggéeyee Sénégal la ministre bi c'est un ministre sénégalais. donc gouvernement bu ñëw bu gisee ne soxla na ko liggéey bi mu doon liggéey baax na mais mën na ko woowaat mu ñëw. continuer ko foofu sax laa doon bëgg a jëm. xam nga euh, Aïssata Tall Sall tey euh, choisir bi nga xamante ni choisir nañ ko ci ci euh, ministère bi dafi fekk ay dossier mhm. de justice yu xaw a tàng jër. ñu bëri aussi doon xaar mu nekk comme ni ñu koy waxee un gouvernement de combat maanaam boo xam ne ay communication yu sect la ñuy dégg. Mhm. mais ci passation de service bi li ñu ci dee parce que à partir euh, euh, des des ci côté passation de service bi ci ngay mën a xam ci ngay mën a décrire ban forme de justice lañ nar a am ban forme de combat lañ nar a am ban forme de gouvernance lañ nar a am mais d'après li am ci scénario boobu donte avec ce gouvernement la chaque jour mën nañ la. salaamaaleykum fii après ñu fayal la fayee la côté bale na le mais nag tey tey ak discours bi soo déggee. ñu ne la libéré nañ détenu politique yi ba mu la bett de. donc peut-être mën mm. nañu mën nañu mën nañu séntu loolu en complicité avec euh, l'autre ministre ministre de de l'intérieur euh, parce que moom itam déclaration li ko Antoine jox comme. comme comme kàddu mooy mm-hmm. bàyyil xel ne li ñu la dénk nii saa yi mooy euh, colonne vertébrale du gouvernement bi mm-hmm. te loolu dafa laaj justification yu bari dafa laaj explication yu bari que ne justice su réew. Mhm. maanaam duñ demee ba ci réew. Serigne Cheikh moo ko doon wax. Mhm. Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum moo ne bi ma Lamine Gueye def na ko Sénégal amul justice mais nee bu ñu ko waxee dafa tiit dafa dar gémmiñ gi ne ko damaa tiit. réew mu amul justice naka lañ fay mën a dundee. désordre total. <laughs> réew mu amul justice naka lañ fa mën a dundee. loolu la ñuy wooye an anarchie lu amul justice anarchie am. lu amul justice jaay doole moo fay am maanaam réew mu amul justice. par mhm. par parloo dafay bari lu dul jaar yoon dafay bari da ngay sàcc sans autant ñu ñu. daan tegu sa kaw da ngay tooñ dara du xew. dañ lay jaay doole te dara du xew dañ lay prise da ngeen bëgg ne ndaa ñu dañ la dara du xew parce que justice amul mais moom bi mu waxee loolu xëy na loolu expression la yu nit mën a expliquer que ci benn dossier boo xoolee justice na mu fa war a taxawee mhm. taxaweewul noonu parce que la ca coloré wu c' est des politiques yoo xam ne mooy ne ci ginnaaw te léegi nag comme euh, maître Sidiki Kaba moo dem intérieur te gis nañ liggéey bi nga xamante ne defoon na ko bi mu nekkee justice parce que extension prison yi ci ci ci magistère am la donc euh, affaire bracelet électronique yi si magistère am la donc liggéey na lu bëri ci ci ci wàllu justice tey ñu yóbbu ko intérieur boobu aussi mën naa jàpp na sax président Macky Sall apaisement judiciaire la bëgg boo xoolee. parce que mhm. bu fi bàyyi woon ñi fi nekkoon ci cadre intérieur ak justice. mën na am mu gën a tàng mhm. donc il faut mu indi ñoo xam ne xëy na dinañ apaiser la situation. parce que ñoom moom gis euh, nañ ne seen discours yëpp dañuy révolté wu. waaw waaw ñooñu moom ñooñu moom doo seet boo boo déggee par exemple Ismaïla Madior Fall li mu wax ci passation de service bi mooy ñun des fois am ay verdict yu génn. ci cadre justice sax daf ñuy bett maanaam ñoom duñ ci nekk sax au courant peut-être mën na ci def entre guillemets na am na justification bu sonko bi mhm. nga xam ne daf leen bett carrément te boobu ay ay naataangoo juriste am nañ ko ba sonn mu bañ leen déglu. loolu loolu mais mais problème bi sax du loolu abi problème bi mooy yow mi ministre de la justice nee nga yow des sax am ay verdict yu génn mu bett la yow. yow c'est dangereux en tant que en tant que. en tant que ministre de la <laughs> justice. nee na dañuy jékki dégg benn verdict boo xam ne ñoom seen jëm bopp ni ko sénégalais di jotee ñoom noonu lañ koy jotee léegi lan mooy suite bi. su boobaa bu favorable peut-être ci sa vision politique wala ci sa vision de de de de ministère lan moo ci suite bi après su booba en tout cas kon waa Paquetas bu leen yeboo seen xel na commencé. dal tuuti ah. peut-être paquetage bi ñuy jooy dina dina dina wàññeeku ministre de la. justice ñoo xamante ne àttewuñ leen. dañ leen téye rek. la justice waroon na communiquer. ci mm. détention ci ñoo nekk grève de la faim. mu wax xalaatam surtout ay jigéen lañ te moom mm. mooy ministre de la justice peut-être mu am benn sympathie bu mu leen kii ne affaire wu lu jëm ci grève de la faim yi ak euh, te ñoom grève de la faim bi nag. Mm-hmm. waxuñu ne génnee leen ñu dee. Mm-hmm. condition ay condition meilleure condition la ñuy laajte dañu dañoo bëgg di def mhm. parce que ku nekk ci prison aussi da ngay fermé soxla dañu def entraînement mhm. dañu soxla hygiène bu baax dañu soxla di noyyi dañu soxla aération mhm. dañu soxla ñu ñuy tafal réglement intérieur bi wax yaa xëy ci mu laana dañoo soxla euh, euh, di communiqué ak suñu suñu suñuy nit suñuy njaboot bu fekkee ne rendez-vous am na dañu soxla ñu ñuy respecter heure yi heure yu tëdd yi ñu ñu koy affiché et cetera et cetera mais condition yooyu yaa xeeti te na xam li ñuy laajte yëpp seen droit la bokk mhm. mais bu fekkee ne boo duggee prison amatoo droit tamit nañu wax man pour man benn droit lañ la privé mooy liberté waaw vaquer mhm. say say say occupation mhm. mais fekk yaa ngi ci biir kaso bi am na ci loo xamante ni mënul ñàkk te jigéen bokkut ak góor ay jigéen boo leen dajalee ci benn bërëb ak boo xam jigéen nu hmm. mu jigéen bu nekk ci këram rek nekk ci liberté rek boo gisee ni muy fonk ni muy toppatooyee boppam vraiment wax ma laa nga nekk ci lëtëleem faxas am nay accès yu hmm. bëri am na ci lu bëri loo xamante ni mënutoo ko am surtout ci wàllu wér bi yaram surtout déjà weer bi si ginnaaw rek ñu ngi doon kaas ñàkkum ndox bi ci prison yi ay loolu moom musiba la weer weer bi paase rek xaw ma lu mën a ñàkk mais ndox mënu ko ñàkk surtout ci prison wu jigéen ñi ba ba ñàkkum ndox boobu. parce que xam moo juró moo juraloon beneen prison bi ay. ay ay wagaak <laughs> yooyu noonu waaw mais bu boo xoolee jigéen par exemple bu duggee prison xam nga jigéen rek déjà moom toujours mënul toog par exemple benn six heures de temps te ndox. day xat voilà day xat. Mhm. donc kooku bu fekkee ne pour mu dem toilette sax c'est tout un problème wala bu fa demee du fa fekk ndox. Mhm. ah saafara bu jur jàngaro lay doon mooy mën na fa jugee sax yóbbu jëlaale feebar boo xam ne ay feebar. loolu tax des fois kuñ ci jàpp di ko yóbbu kaso lan la ñuy wax ba muy dem da amul benn feebar. parce que dañuy xam ne condition yi nekk ci biir kaso yi. dafa xaw compliqué par rapport ak euh, li war a am. ah Madior mënoon naa wax ci justice da moo gën muy wax ci ay dossier politique. waaw ah, mm. jamono ji moom politique nañ ko bàyyee candidat yi wàcc ci terrain bi rek. comme moom sax ñu yoratul wàllu justice na dem si yoonam na dem di wax ji affaire Euh, affaire euh, étrangère waaw euh, sénégalais ya nekk ci bitim réew war a waa waa ba waaw am ñu am ay problème de dossier pour mm-hmm. ñibbisi am ñoo xamante ne nii tey renouvellement passeport ñu ngi wax affaire immigration clandestine mais moom tamit génnu ci responsabilité mu ngi ci mooy sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi foofu ñu téye leen ñu indi leen ñu ñee rey aussi te kenn du mën a expliquer lépp mais nañ ci nañ ci nañ ci taxaw cas bi am récemment Tunisie mu ngi noonu. doomu sénégalais yi ñu ne bu ngeen dellu si waatee sax ñu rey leen te ñu ngi leen sànni ci désert bi. doy na waar de te dañu jëm ci élection uh-huh. présidentielle moom en tant que ministère. am na liggéey moom. bi yor wàllu affaires étrangères. Euh, condition des sénégalais au niveau de l'extérieur aussi mm-hmm. war na ko xolaat bu baax a baax a baax xool liggéey yaa ngi moom moo fay à la fois le ministre de l'intérieur foofu mm-hmm. mooy jouer le ministre de l'intérieur président la république que mm-hmm. mooy xool ambassade yi ak euh, consulat yi ndax mu seen liggéey ngi jaar yoon sénégalais yi est-ce que ñu ngi am jàmm fi ñu nekk et cetera et mm-hmm. voilà kon mooy seen président na ko bàyyi xel bu baax a baax. Euh, Mame Khalifa. kañ nga gëj dégg ma ma kii nii Mame Boye man de depuis déclaration <laughs> candidature am laa ko gëj dégg. xam nga xam nga Mame Boye. def na ñaari weer. Mame Boye euh, comme li ma wax tout à rek pour nga comprendre li tax ñëpp di laajte fan la nekk il faut nga xam d'abord lan moo xewoon avant muy génn. y a un problème. li xewoon mooy daa frustré woon ndax Amadou Ba bi ñu choisir woon candidat mu jàpp ne nekkul candidat bu adéquat pour benn Bokk Yaakaar. mu woote conférence de presse mu de presse bu rëy. dem déclarer candidature après ñu dàq ko impôt bi mu jiite woon ci même jour bi si je me trompe pas ci lañ ko dàq euh, institution bi mu yoroon. Mhm. ñu mu jugee fa quelque jour après ñu commencé ko gis ci plateau yi. Mhm. ci plateau télévisé yi donc muy wax xalaatam bëgg bëggam gëm-gëmam bëggul sax di communiquer sur le président Macky fekk jamono jooju ci beneen côté aussi amoon na yeneen ses collègues yoo xam ci ni wax nañ fi aussi euh, euh, président recevoir na ko en catimini ñoo ngi ñoo ñëw ci même boobu bi mu ko mm-hmm. def recevoir ba noppi parce que loolu ça existe bi ñu ko recevoir ba noppi moom génnaan na euh, am na sax ñu génn ci ci ay njabootam wax ne kenn mënul yàq deru maam booy Diao voilà Euh, président Macky Sall mais loolu dafay justifier rek xam nga président Macky Sall ñi nga xam xamante ni génn nañ ci benn bokk yaakaar nekk ay candidats comme ni ñu koy waxee toujours mm-hmm. c'est des candidats de Macky Sall réeroo amut ñaa kenn laa xam ne peut-être bu fekkee ne euh, mën na ñaar sax laay wax ñoo xamante ni moom seen seen déclaration dafa leer juste et clair mm-hmm. par rapport ak euh, benn bokk yaakaar muy Boun Abdallah Dionne ak Aly Ngouille Ndiaye Boun dafa wax ne dañ ko poser la question mm-hmm. dañ ko njëkk ñetti question lañ ko posé première bi mooy dañu gis ne da nga niroog Ba doxalin. Mhm. lan moo tax àndoog moom ci élection yi kon. Mhm. mu ne ko dem mu ne tontu leen dem ko subvision ñu posé ko question euh, euh, lan moo que tey bu ñu demoon tey ci élection présidentielle. Mhm. ñu dem deuxième tour Amadou Ba dem deuxième tour ak benn membre de l'opposition est-ce que da ngay soutenir ji Benno Bokk Yaakaar mu tontu leen lu lu simple. ne leen carrément du mooyu naa Benno Bokk Yaakaar c'est fini. xam nga kooku kon joxe na posture bu leer. Mhm. maanaam dootul soutenir ci benn bokk yaakaar même bu demoon deuxième tour kooku mën nga jàpp ne dafa dafa dafa disloqué wu ak complètement avec la coalition benn bokk yaakaar. Mhm. Aly Ngouille moom gis nga communication moom faf dafa xarab carrément Macky Sall ak li mu fi def yëpp moom waxuma la xam nga Boun Abdallah Dionne sa waxul dara ci Macky. Mhm. moom ci ci ab Amadou Ba la wax mais Aly Ngouille moom dafa attaqué Macky Sall. carrément presque secteur yi mu laal yëpp secteur yi Macky Sall doon gérer yëpp. dafa jàpp ne secteur yooyu dafa taxaw benn doxu ci communication euh, pêche. agriculture euh, élevage sport jigéen ñi tout moom dafa jàpp ne fépp a wu. mu jàpp ne c'est moom mooy solution. bu dee Mame booy Diao nag moom euh, dalul ci président Macky Sall waxul sax aussi ci ki nga xam te ni moom mooy euh, Amadou Ba xëy na fi boppam la doon wax te bëggul aussi ku koy laalale ak ak mouvance présidentielle bi. Mm-hmm. mais loolu dafay buñ ci tegee benn benn tête ak Macky ñu jékki-jékki dégg ko gisatuñu ko on pose la question euh, l'observateur ñaari question la posé mm-hmm. mooy benn bi mooy est-ce que du dafa am lu mu pacte bu mu am ak Macky Sall ci ci ci ci euh, tête à boobu noonu wala boog dafa am problème mu parrainage parrainage da koo doy sëkk sëkk liggéey <laughs> parce que parrainage bi na wax dëgg yàlla ku jàkkaar la moom bu dugg ci terrain bi. xam réalité mu war cee concentré wu. bu réalité yi. Mm-hmm. jur yi di dem vingt quelque quelques jours dem déjà. Mm-hmm. di nga xam ne euh, vraiment euh, ndekete politique lu ñuy waajal la. nekkul lu mais nag parrainage man à mon bi warut a problème maam Boye Diao de. ah <laughs> yow Mame Boye ak li mu liggéey ci dëkk bi yëpp. <laughs> <laughs> nekk DG impôt. <laughs> mais mais abi même même même ñi nekkoon ci kii bi ci euh, ci même les plus grands partis politiques. Mhm. actuellement dañu am problème man j'ai constaté même ko benn Bokk Yaakaar am na ci yenn zone yoo xamante ni xiroo ŋaayoo commencé na faa am ci cadre boobu yow euh, tudd nañ fii le cas de Matam. Mhm. ak euh, Farba Ngom. le cas de Kaolack. Kaolack la. ah ilaha illallah saa yow de yow nga <laughs> nga wax de Kaolack. <laughs> mais pour wax la ne la même les plus grandes coalitions dañu am problème pour fi mu toll nii parrainage parce que 44 200. Mm -hmm. 44 200 du 44 voix du 44 signatures euh, te jaune yi nga koy wutee dafa xaw a wutee 44 252. 44 252 bon euh, nombre bu suffisant la mu nekk mu mu laaj une équipe bi lay pilotel boo xamante ne nii. Euh, dans les quarante cinq départements du Sénégal. fu ci nekk lu mu dee war nga am benn équipe de pilotage équipe boo xamante ne nekk sur le terrain. bu xëy tey mën na bañ bokk suba donc mm-hmm. une équipe ni dafay bari nit lay doon bokkut ak équipe de recensement bi nga xamante moom mooy toog di enregistrer peut-être waa léegi maam loolu nag war na laa mën a téye ba doo communiquer ah peut-être mu ngi maanaam bu fekkee ne yooyu ngay lijjanti maanaam département bu nekk oh, bu communiquer wul ñu fàtte ko de mais waaw mais bien sûr xam nga li taxoon mu doon profité ci période boobu c'était le moment de communiquer. parce que laaj wóor na ko de les autres mois qui restent ay travaux la laaj travail de terrain ak wut financement. Mhm. pour sa campagne. Mhm. donc loolu c'est c'est clair mais nag. li wér daal mooy euh, xëy na ñu ngi doon gën a xaar mu def beaucoup plus de communication comme ni ko ñeneen ñi di defee mm-hmm. donc loolu aussi dafa bokk ci peut-être li ko war a mën a may sens ci euh, élection présidentielle bi lu koy fësal nit ñi nit ñi communication bi dañ koo valoriser bañ a kaa boobu da ngay taxaw si si kanamu seen bi ñu lay miin politique kii dafay dee politiquement mm-hmm. laaj ko euh, ñenn ñi ñu gis di la xam waaw laaj ko ñenn ñi parce que bu xam nga la moo gën a. Ah, yow yow tey par exemple yaa ngi dégg ñu ne la plus de 234 candidats la ñu am. pour nga 234 yi est-ce que mën nga lim 10 ba yeggal. ah man mënuma ci lim 15 mënuma leen ci lim de wax dëgg yàlla moo ma waxee sama dëgg mën naa peut-être am di compter di compter di compter ba 10 mais 15 moom mënuma faa yegg. mënoo koo lim mënuma koo lim dëgg yàlla. te déjà ñu ne ay candidats. maa ngi war di la gunge. Mhm. ba ñu yegg fa nga war a jëlee oto. Mhm. maa ngi moom fi ñu toog gis nañ fi benn candidat boo xam ne man mosuma ko xam. ma euh, ma lay laaj ndax yow maam Khalifa. waaw yaa ma doon laaj ndax xam naa kii <laughs> xamuma ko. mooy ki doon def man que parce que yaakaar ne affaire yi comme championnat Sénégal la football. déggoo maa ngi tooj naan oto bi mbaa mbaa àbbul oto jàmbur sax. ah oto ba da oto bi toj na de mais loolu dafay wane ne. Euh, xëy na il faut ñu jàngalaat dans lekkool édi éducation civique bi ñu doon jàngale mm-hmm. mooy nga xam sa réew xam mm-hmm. sa cosaanu réew xam li tiim sa réew ak li mm-hmm. téye sa réew nga am amour bi ah, donc am patriot euh, patriotisme bi dafa am solo mais dina la xamal tamit yenn critère mooy moom ngay incarner pour mën a nekk euh, candidat élection présidentielle parce à un moment ñenn ñi jàppee nañ ko sabotage ñenn ñi jàppee na yëg-yëg la rek ma ne kon nañu yëg bëri na cent trente moo tax cinq ans moo moo tax première leçon IC ñu ne la la nation la nation ndeysaan oh, oh, oh, oh. yaa ngi koy fàttali leçon yi am solo abi man éducation civique dama ko bëggoon xamoon naa ne domaine yi faaw ma suivre dama ko bëggoon a bëggoon ba ay diis rek laa daan am <laughs> xoolal ci yeneen leçon ay observe xam nga temps boobu nag yii nii gis nii amul ci école bi ñun ay observation lañ tombé loon topp ba troisième. ay observation lañ tombé loon ay géographie. Mm-hmm. ay ay éducation civique. yooyu lañ xamoon ñun te loolu amatul léegi ci école bi mais temps boobu abi non xoolal dama jëloon éducation civique def ko sama affaire. pouvoir yi nekk ci. waaye daa fekk si dira ba am nag. si dira si dira amatul rek a wóor nag génération si dira ba ñoom rek a wóor. ñu lay jàngal les pouvoirs l' les pouvoirs. di la jàngal euh, rôle président de l' assemblée di la jàngal euh, rôle du premier ministre. ñu naan la les emblèmes du Sénégal. ah le sceau et le baobab. waaw la mhm. devise. non jàng amatul. <laughs> c'est te te te te ay ay ay du Sénégal. Euh, lion baobab waaw. mooy oh. mooy mooy les sceaux de la nation jàng amatul abi. ndeysaan. jàng amatul les couleurs de la nation. ñu dem ba couleurs yi ñu lay wax ñu ñu lay wax signification. couleurs des couleurs. da nga koy parce que luy mm-hmm. gis la. xaw ma nag man xamatuma nag wax dëgg yàlla parce que amal benn moment boo xam sama rakk bi dafa ma doon indil seen programme euh, mm-hmm. seen programme scolaire yi mais seen euh, rubrique yi on va dire seen leçon yi. Mm-hmm. ah dafa changé complètement par rapport ak ñun li doon jàng. dafa changé ak li ñu doon jàng. xaw ma jamono dama koy wax xale pour nga jàppale leen exercice mais da ngay ubbi doo leen mën a jàppale foog nga ut répétiteur. jàngee soppeeku magee la. jàng def soppeeku ñun bu njëkk dañ doon commencé ñu lay jàngal. alphabétisation laay la léegi livre la ñu ñu lay booleel a ta ba yooyu noonu. après tegal la lettre na lettre bu nekk nga boole ko. te waaw te aataa. waaw te léegi loolu amatul ci ñoom <laughs> ñoom ñëw. xam nga nañu commencé maam. <laughs> ay ay ay kii lañ lay jàngal. ay ay mots waaw. nga ñëw bonjour madame monsieur. boo paree doo xam lan mooy. loo mais euh, xale boobu lu may mën a différencier. consonne yi pourtant bu njëkkoon dañu doon sonn ci consonne yi ci voyelle yi ci lettres yi ci ci ci maanaam lu da doon tax. nga mën di composer daaw dama am benn élève sëy jàngale sëy yi bu njëkk ba bañ ñu doon jàngal ñun të pa na ma moom laa jël ardoise ah, jàngale ko man man bu ma jàngal samay doom noonu laay jàngal tey jii nii maam CP lay def mais boo ko joxee phrase dina la ko mën a lire ah, par rapport ak moromam ya mu nekkal ci ah, école ba waaw waaw waaw loolu kay maa la ko wax waajur yi delloo leen dellu leen ci jàng boobu de parce que li am léegi pour élèves yi comprendre ko c'est tout un problème lan la nga ñëw ñu indil leen mot direct <laughs> <laughs> xaw ma ko soppi loolu nag. doy na waar mais kan moo ne woon suñu ministre de l' jamono bi ñu doon jàng ñun. temps Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf kan moo ñu ci gën a. amoon na Youssouf Ndiaye. xaw ma ko woon Ndiaye xaw ma ko woon nañ continuer. moom moo fi nekkoon amoon nañ aussi un certain Soumaré. tur bi tur bi non pas Hadjibou Soumaré. kon man ñooñu xaw ma leen. ndeysaan ñoom ñoo nekkoon euh, ministre de l' yoo xamante ne man man <laughs> man fàttaleku fàttaleku naa leen. maam nga ne da ngaa fàtte ñooñu sa génération yo man daal li ma ci doon fàttaliku mooy Idriss Seck mi doon wax aaye yi. moom maa ngi koy fàttaliku ba léegi ak marto ak marto ak kii. marto taale si lay ba. yooyu moom ngay fàttaliku. jamono Abdoulaye waat li ma ci fàttali ko bëri wut de waaw <laughs> ah, sànq Thiès yi daal ay ay ay pourtant nag est-ce que xam nga dara euh, ministre Abdoulaye Wade yi nu ñu leen miinee woon miinee wuñ ko noonu ministre socialiste bokkuñ bokkuñ ministre Abdoulaye Wade ministre Macky Sall yi sax am na ñoo xam ne xamuñu leen de miinuñu leen de Abdoulaye Wade ah. nga doon gis ay tey ministre yi gën a siiw ci régime Macky Sall bii mooy Antoine Diome parce que seen ministre yi en ah, fait dañ doon génn dañ doon génn di communiqué tey am na élèves yoo xamante ni terminal boo leen laajoon quand même ministre de l' éducation xamuñ ko. Abdoulaye Wade amoon na ministre kii Kalidou Kalidou Dieng. Kalidou waaw éducation éducation Kalidou Dieng waaw kooku je me rappelle kooku maa ngi koy fàttaliku. <laughs> paa bi waaw ah. ak euh, Souleymane Ndéné Ndiaye maa ngi koy fàttaliku. waaw parce que moom doomi Saloum la moom maa ngi koy fàttaliku. ñoom ñu ngi fi woon abi nañ avancé balaa ñoom sëñ Modou Bousso Leye. Ah, waaw waaw <laughs> culture. waaw boobu maa ngi koy fàttaliku kooku maa ngi koy fàttaliku. ñoom Aliou Sow ministre de la jeunesse ñoom Fada. maa ngi koy fàttaliku Fada tamit maa ngi koy fàttaliku. Oh, oh, waa da ay ministre parce que ñooñu ñu ngi si terrain lu bëri mm-hmm. ah, ministre yi dañ leen communiqué ndax xale yi xam eh, leen maa ngi leen di fàttaliku seen kanam réeru ma réeru <laughs> alors euh, ñu yeggali rek euh, xibaar yi ak waa DGE ndax euh, ñoom daal bi Ayib Daffé delloo démb pour jëli liste parrainage bu bu bu bu kii bu euh, mhm. ba mu àndee collectif d' avocats yi dañ leen dañ leen dàq ci direction ba. waaw xam nga li waral loolu. Euh, bu ñuy sukkandikoo ci mandataire président Ousmane Sonko bi nga xam ne moom moo waroon a jëli ji fiche de parrainage bi moom daf ne y' a mhm. aucune justification bu ñu ma ci tegal dama dem war a dugg ñu ne xaaral tuuti lës la mhm. ma toog ba yàgg. ne leen sëñ bi xanaa ah, da ngeen fàtte mu ne ko pourtant am na ko la wala kii am na ko gérer wàllum liste yi nangam nangam. Mhm. keneen moo ñëw mu présenté wu mun a ko ah ok yow la xaaral ñu jéem a lijjanti bi ñu par la suite lañ ko jox information que ne vraiment euh, directeur bi mënu ko recevoir parce que tey nekk amul envie recevoir kenn. bu recevoir kenn quoi léegi nag ci cadre administration balaa ñu ñëw ci wàllu politique. lii recevoir daal par avis la. non attends lii sax dafa bari léegi ci administration. <laughs> est-ce que abi ñaata yoon ngay wuti ji papier yii nii yu sew sewaan yii tere laa jot papier nga nekk en examen. wala nga nekk ci ci benn dossier boo war a lijjanti. dëgg la de da ngay dem mairie uti kayit ñu ne la officier bi ñëwul tey. ñaata yoon ngay dem hôpital ci administration laa la fa de. Mm. ngay dem hôpital ñu lay wax genre yi wax yu mel lii. Mm. c'est-à-dire que lii di mel lii justification wu ay excuse yu bari la yoo xam ne suñu administration yi dañ koy def muy benn ñaareel bi mooy ayib bi mu jugee foofu def na déclaration wax ne waxuñ ma dara lu leer parce que bu ñu ma waxoon sax ne ma anna notification bi wala ñu ne ma euh, da waroon a ànd ak avocat. Mhm. wala ñu ne ma da ngaa def nangam def nangam loolu su boobaa mun nañ ko justifier wala ñu ne la sax wala ñu ne la sax. Mhm. Euh, ba tey ci gisuñu ministre de l'intérieur. bu justifier que ne yow mën a am. Mhm. Euh, war nga mën a jot fiche de parrainage bi. donc loolu bu ko ci waxoon dara sax dina xam ne donc fii la problème bi nekk mais dañ ko waxul dara dañ ko génnee rek ba ko mu dem ñu ne comme que démb amatoon envie xëy na tey dina am envie. <laughs> man de am envie laay bañ a dégg parce que comme question envie la dama am awma sentiment wu tey recevoir la tey peut-être dina am sentiment wu recevoir ko moo tax tey dinañ dem ñoom nee na dinañ dem. léegi moom directeur général moom ci envie liggéeyee. mais mais la question. est-ce que mhm. sax c'est une obligation ñu am ay jours yu yu ñuy am envie pour recevoir euh, nit ku war a jot benn papier boo xam ne moomuloo ko dañ la ko dénk pour nga joxe ko mhm. waaw wala déet bi ci des léegi nag ñu ñëw ci fond wu dossier bi dañu wax ci journaux yi ne le vrai problème c'est pas euh, la direction générale des élections le vrai problème c'est le ministre de l'intérieur mhm. Sidiki nan. Sidiki Kaba. waaw pour bañ a wax ja jaki jaki. Euh, <laughs> ki Jabaate. <laughs> donc Sidiki Kaba moom mooy le vrai problème parce que dañu wax ne normalement bi juge bi juge bi xam na ne. Mhm. def délibération justifié wul ne def notification bi justifié wul ne ñoom war nañu am accès ci fiche de parrainage bi loolu juge bi xam na ko mais xam nga juge bi il faut ñu comprendre benn affaire. Mhm. juge bi amul di jox ay leçons wala di jox ay morale wala di mhm. conseiller. l'équipe de Sonko. moom jugement am rek lay occupé lay mhm. moo tax au lieu que bi muy gis nga bi muy def notification préfet bi. Mhm. kenn comprendre lan moo tax mu def ko. kenn xamul lan moo tax mu def notification boobu man mii j'ai posé la question lan moo tax mu mu notifié ko. Mhm. ndekete notification boobu yëgal boobu mu yëgal préfet bi que ne telle décision jël nañ ko tel jour. ci ci tribinal bu Ziguinchor mooy justifier que ne yow war nga yëgal. ministre de l'intérieur parce que procédure la. te boo seetloo coowal tribunal bu Ziguinchor bi yëpp affaire de procédure la comme comme moom nag dafa wax ne état respecté ko doon procédure ci cadre raja ci cadre affaire de lien de parenté bi moom dafay respecté procédure moo tax bi mu defee notification bi ba noppi délibération bi daf ci teg notifier le préfet que ne y a une déci telle décision bu ñu jël donc sa mission mooy nga euh, yëgal le ministre de l'intérieur donc moom aussi mu jël ay matuwaayam insérer le président Ousmane Sonko ci euh, fiche euh, fichier électoral bi. Mhm. su boobaa nag ñu xam ne c'est un électeur parce que ku nekkul ci fichier électoral nekkoo électeur. Mhm. actuellement jusqu'à aujourd'hui le, le euh, comment dire Ousmane Sonko ne pas encore inséré dans le fichier. électoral te ku mhm. nekkul wax dëgg yàlla ci fichier électoral boo jëlee fiche de parrainage pour kii fiche de parrainage ki koy jël mooy un sénégalais reconnu mu nekk ci biir fichier électoral maanaam bokk ci ci ñiy voté ba pare mën a nekk aussi candidat. Mhm. donc moo tax xëy na direction des élections bu indi woon justification boobu peut-être peut-être mën nañ ko comprendre mais dafa waxul dara maanaam amul benn accès direct ak mandataire bi ba koy justifier lan moo tax euh, lan moo tax euh, joxuñu la fiche bi maintenant moo tax. Mhm. excuse bu yolom boobu ñoom itamit ñu répondre ko ñu répondre bu yolom mooy comme que da nga amul envie tey di nga mën nga am envie. boo amul envie tamit saa bu leen neexee dugal saa leen neexee génn. <laughs> léegi loolu ba loolu nag. gis lu sérieux ngay wax nii. no fichier bi dafa yolom trop. lu sérieux ngay wax parce que dama doon dégg ñu ne. parce ay révision kenn mhm. bu jotee bu ñu toog boo xasee ba réviser clôturer nga. six mois des élections dañuy clôturer fichier électoral kenn dootu ko bu ñu demee bañ naan dugal ak génne loolu ça reste question bi ci des nag mooy fan la affaire bi tagee mhm. problème bi ci. préfet la tagee wala ci préfet bi jox na notification ministre bi ministre bi moom xam nga tey dafa amoon benn sujet bu fi nekkoon ci bëri trop ñu naan Ousmane Sonko rajo nañ ko Ousmane Sonko toog benn vendredi ne man yëguma ko woon. Mhm. ndax gisuma notification. Mhm. taxawal bu baax ma leeralal la. Mhm. ñu ne ah loolu mënul ñàkk parce que ministre bi moo ngi koy wax ci télévision yeeg ci kii nangam nangam. avocat oh, yi génn daal ne très bien avocat yi génn ne ministre même bu fekkee ne yow ministre tutelle nga ci telle institution nga nekk di communiquer ça veut pas diir que tout simplement euh, jox nga àq ak yelleef topp nga àq ak yelleefu euh, l'intéressé donc normalement dafa am lu koy justifier mooy kayit boo xam ne dina am accès directement ci euh, ki nga xam te ni moom la ñuy jëflanteel muy Ousmane Sonko donc. comme dégg naa dégg naa la ñoom avocat yi dégg nañu ne ah raje nañ ko ndax ministre bi wax na ko gouvernement bi wax na ko et cetera et cetera kon mën nañu poser la question est-ce que préfet bi wala boog euh, ministre de l'intérieur bi dégg na ne y une décision qui a été waaw wala déet ndax loolu dégg na ko wala boog moom euh, fi mu toll nii ay écouteur du déglu rajo voilà <laughs> du déglu rajo di seetaan télé du déglu du suivre internet léegi lan mooy rôle lan mooy de justice si dëkk faire des constats jàllale euh, jàllale jàllale ko tey je pense bien que administration lenteur bi tollul nenn ni mhm. Sénégal mhm. parce que bu ñu bëggoon jël yenn décision yi automatiquement dañ koy jël waaye yow saa waxatuñu ko ba pare gis nga lii toujours del ñëwaat ci tête yi mhm. ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk mbir yooyu ñu war koo doxal qui est le préfet de de de de Ziguinchor ma posé waat ko chaque émission ma posé question Momar Talla Tine ma nekkoon Dakar waaw léegi boo xamante ne ni toujours mu ngi woon fii dafa nekkoon euh, en combat ak moom. Mhm. parce que moom gis nañu liñ ko fi doon wax fii yëpp presque Ousmane Sonko saa yu bëggee génn ñu interdire moom ci boppam mooy joxe ay arrêté yoo xam day interdire ay mbiru Ousmane Sonko. Mhm. ay activité am tey bu fekkee kooku la ñu jox ab notification ne ko jox ko ministre de l' <laughs> bu taxawee bu mu bett kenn. risque de trouble à l'ordre public. waaw bu bu bu loolu moom bu ñu ko miinee. <laughs> loolu moom ndakaar ndakaar miin na wax ah, jooju. risque de trouble à l'ordre public donc euh, abi booy xool en vérité. Mhm. li xew tey Ziguinchor ñëpp a ko doon xaar. Mhm. fenn rek la état lajjee te foofu mbiru suñu borom la mooy ci juge bi ci boppam. peut-être foofu jàppoon nañu ne le juge choisi peut-être mënoon na nekk euh, koo xam ne dina favorable ci ñoom su boobaa préfet bi tamit day ñëw nekkaat une même équipe mais est-ce que sax tey juge bi dina neexoo ak le préfet parce que c'est son premier acte mhm. envers le préfet euh, préfet bi tamit mooy première réception bu mu njëkk a def ci juge bi mhm. mu des nag mu jël ci ay matuwaayam te préfet nag wax dëgg yàlla envoyé wuñ ko foofu aussi pour des affaires politiques ou bien pour muy pour muy téye ay notification mhm. donc mission moo nekk jàllale. na jàllale rek ministre de l'intérieur bi moom comme am na une communication bu mu def ñu xool lan moo nekk sa réaction. assurer l'ordre de la localité. voilà donc ñu xool lan moo nekk sa euh, lan moo nekk euh, ses réactions. donc loolu moo am ci dossier bi léegi nag fi toll nii ñu ngi xaar. tey gars yi war nañu demaat ci direction générale des. Euh, hmm? euh, des élections pour mën a xooli fiche bi ndax nañ ko jotam déet. je rappelle que il euh, y a un autre combat aussi. Mm-hmm. mooy que les avocats de Sonko aussi parlent sur cette notification envoyée au niveau de la préfecture de Ziguinchor. Mm-hmm. ensuite ñu wax lan moo tax ministre de l'intérieur ñu saisir ministre de l'intérieur laaj ko lan moo tax defagul réaction ba léegi parce que dañoo nekk course de vitesse le temps et que aussi euh, affaire de parrainage bi mu ngi bëgg a yeex par rapport ak. Euh, camp président Ousmane Sonko parrainage bi lee mu tëj de. bien vrai que nag li li ñuy wax chaque jour. que ne que ne bu fekkee ne validé nañ ko moom amul problème mu parrainage. waaw loolu mais nag temps bee ngi dem. loolu loolu loolu loolu yëpp lu ñëwagul la. lu ñëwagul la parce que ku demagul sur le terrain. Mhm. bu fekkee ne amagoo loo teg sa loxo teeku nii mënugoo justifier ne. Euh, matal naa wala mataluma. Mhm. te dañu nekk dans une société boo xam ne pas plus que deux deux cent et quelques candidats ñoom sur le terrain juste deux cent deux cent et quelques candidats yooyu. Mhm. wóorul la ndax am na ci ñoo xamante ni nii waroon nañ la parrainer waaw wala dee parce que même le patriote bi nga xamante ne nii dafa war a parrainer Ousmane Sonko son parrainage n'est pas important mais parrainage yu euh, ñi mu nekkal environnement bi mu nekk. bu mhm. mu ëpp solo est-ce que ña muy nekkal parrainé wuñ keneen ba noppi. Mhm. loolu tamit parce que dañu nekk ci période boo xamante ni ba tey ji la candidature de Sonko n'est pas encore claire am na ñoo xamante ni ñooñu commencé xaat yi mhm. mën nañu jëlaat yeneen euh, position donc moo tax instant bi ni ñu ko yor wàllu yoon ci côté Sonko nañu baral ñu yor wàllu politique bi aussi nañu baral la communication continue les sensibilisations continues bu ñu bëggee am dara ci euh, parrainage bi ak élection euh, présidentielle yi ñu jëm. li ñu doon wax sànq nag ci wàllu justice ak. Euh, longue détention yi nga xamante ne maître Aïssata Tall mu ngi ko doon wax donc euh, ñu mel ni liggéey bi commencé na ah. parce que maire bu Thiaroye bi nga xamante ni depuis le 17 août mu ngi woon ci euh, ci détention ah. ci coowal faux bond yi nga xamante ne toll na ci trois milliards mm-hmm. donc moom déglu nañ ko dans le fond mm-hmm. tey jii parce que temps yële yëpp ñu ngi doon renvoyé li nga xamante ne mooy jàkkaarloo woon ak juge bi donc euh, introduiraale nañ demande de liberté provisoire ñu am yaakaar ne fii fan yi fii fan yi di ñëw daal euh, juge bi dina dina àddu ci ci mbir moomu noonu. waaw euh, yëngal dossier yi rek. Mhm. yëngal dossier yi le président de la République a intéret euh, de nous un beau cadeau un plus grand cadeau bi ñëpp di xaar toujours mhm. mooy libérer les détenus politiques. c'est le mhm. plus beau cadeau comme ni ma koy waxee toujours. bi ñuy xaar ci président mais aussi ñu ngi xaar euh, la libération aussi euh, bu mel ne bu euh, président Ousmane Sonko parce que dina gën a neexal nag langue politique bi. Mhm. ku mën sa morom dóor comme ni ñu koy waxee. voilà donc loolu daal xam naa lañ ciy xaar ministre de l' intérieur ministre de la justice. ce couple la man ci sama sama yaakaar yaakaar naa ne apaisement moo tax. Mhm. président Macky Sall def ko mais maa ngi gën a ñaan nag ministre de la justice mu gën a bàyyi xel les femmes yi nekk ci biir je pas de politique mais toutes les femmes détenues yi nekk mhm. ci biir prison yi parce que ñeewante dafa am solo mhm. man dama jàpp sax ne yenn ministères yi jigéen na ko war a yor yenn ministères yi mhm. jigéen na ko war a yor être am na am na ñoo xamante ne nii euh, rancunier ak kii ay affaire politique ak affaire yooyu noonu ci góor la gën a yombee que jigéen donc ma maam <laughs> du génération bii de. Ah, mais mais mais léegi boo xoolee jigéen ñi pratiquement ñoo gën a. tàng waaw féroce ci wàllu am na ci jigéen ñu baax nag. parce que gis naa gis naa temps yi ci affaire peut-être people lañ ko laalee woon muy coowal euh, sunu naataangoo astu jonn bi jugoon boo xoolee ki ci àddu jigéen la. kàddu yu ñaaw yi jigéen la donc euh, Sénégal daal ni ñuy defee politique léegi. Hmm. muy góor ak jigéen ñëpp a ci yem de. ñëpp ci yem jigéen ñi ah, sax ñoo ci gën a soxor léegi. en tout cas daal peut-être avec cet euh, nouveau gouvernement ñu ngi xaar xëy na dossier justice yu bari nag xaw a yolom tuuti. Mm-hmm. waaw parce que foofu lañ toll dañu toll ci période boo xam ne soxluñu tension soxluñu manifestation ñu yëf yi di metti. Mm-hmm. dañu yolomal lépp waaw yombal lépp. nit ñi mën a am accès ci seen i carte électeur dem voté ji après élection yi bu jàllee ñu Sénégal ku nekk delluwaat ci say occupation man daal loolu gëm ah. te euh, moo gën leneen li fi xew quoi mm-hmm. parce que ñu ñun ñu dara jàmm daal lañ tal ci réew mi di sañse suñu sañse yu baax di toog di oh. lekk yu neex di takk si soxna yi di ay oh. doom di ngénte di woo suñu mbokk ñuy ñëw di assister te may dëgg ku lekk fay ah euh, entre guillemets <laughs> woote bi xanaa du teral rek teral la mais am na xew yoo xamante ni da ah, jël billet d'entrée la. loolu moom